kii mooy mbëru naxataa. waaw ah, loolu naa kii mooy mbëru naxataa. kii mooy champion bi nga xam ne suma caméraman bi da koo bëgg. fonk ko lool. loolu yàlla nga def muy sama rakk. waaw ah, toolu yàgg dëgg la. bu doon borom baax doon sama waay. sama mbir dañuy taxaw bu baax. dëgg la di ko jaajëfal bu baax. dam seen yàlla def na combat bi yàqu na lan ngay wax say supporter. waaw sant yàlla. tamit a pexem yàlla dogalam combat bi yàquwul dañu faa renvoyé rek a naa ba su ko dugal loolu. maanaam bis bi bis bi mu waroon a am. waaw bis waroon am amul mais ñu ñaan yàlla li ñu ñëw gënal ñu li ñu nii li ñaan suñu bopp dafa ñu dab ñu ci a yoon bi nekk ñu ngi ci saa buy xëy di des nag dañu koy bàyyi suñu borom di xaar le jour suñu dafa ñu dab mais ñun moom suñu côté nice. lan ngay wax sa adversaire. a nice ah di ko ñaan di ko di ko ñaan sa bopp. gis nañ euh, keroog yéen ñaar ngeen def benn saafante bu doy waar ba ñëpp di ko rafetlu. waaw yëpp làmb la sport la làmb sport la taw ñu ñaar wax dëgg yàlla def na ci làmb loo xam ne waratul waree lu yàq làmb. dëgg la tamit noonu moo xam nga lépp day am di fair play mais du tere su di jour bi waree xeex dañuy xeex bu waree bëri dañuy bëri. nga ne maa loolu. Dame Sène. waaw dégg naa ci biir wax nga ne combat bi. waaw moo leen di tàqale. waaw arbitre yi ñu tàqale moom su arbitre suul du ko su ma jékkoon fu ma mënee rey na ma rey su ko mënee rey na ma koy la mënee rey na la rey na ko de. ma koy rey ñaaw mais lu mu na ma ko def man lu na ma koy def. Ah. maa la loolu. kon jeex na jaajëf jërëjëf da la a